présente mois c'est Sangone Ndiaye, je suis le président de l'ASC Entente Résidence Chop Sofa. Bon, tey jotaay bi ñu dajale woon fii tey c'était un moment solennel boo xam ne dañoo ñëwoon pour euh, def ay remise de lots sportifs au joueurs. ñu présente leen en même temps au membre de la cité ak comité directeur bi yëpp ah ñoom ñu jël engagement devant tout le quartier ah wax ni dinañ euh, joxe seen bopp ba mu jeex tàkk pour def tout pour satisfaire euh, waa koñ bi. incha allah c'était ça moo loon tey jotaay bi. c'est que soo gisee ñu def effort yi yëpp ba ku nekk jàpp si si koñ bi ak euh, suñu euh, sponsors yi ba ñu mën a joxe looyu yëpp euh, joueurs yi dañoo bëgg ndax joueur dafa laaj ku ko taxawu daa laaj ku ko taxaw laaj ku ko jox ay équipement ku wax football wax équipement ndax football bi léegi foofu la toll. moo tax ñu def tout ah dajale li ñu am yëpp ah, dem gis suñuy mbokk ak ay eh, sponsor moo tax eh, ñu réaliser li yëpp jël ay équipement jox ko joueurs yi pour ñoom it ñu am jumtukaay yu ñu demee dem utal ñu ndam. waaw ASC bi dañoo bëgg mu jouer rôle boo xam ne rôle fédérateur ndax dañoo nekk eh, si quartier boo xam ne dafa yor ñeenti entité maanaam am na ay douanier fii am na cité résidence Thiop mooy àll bi ñu nekk de l'autre côté am na cité Sofa ak fii si ginnaaw. dañoo bëgg nag ASC bi ASC bi ñëw doon rôle fédérateur boole cité bi yëpp ñu doon benn ndax quoi sport wax ndaje waaw te sport day boole te loolu duma leen ko jàngal ñëpp xam nañ ko sport day ndaje te dañoo bëgg tamit jeunes yëpp ñëw engagé wu si nekk ci te ñun dañoo am benn slogan boo xam ne moom lañ teg dañoo bëgg leen navétane autrement maanaam bés bu ñu demee stade ñun suñu navétane naneen lañ koy doxalee ak pa uteeg lañ daan gis démb dañoo bëgg suñu demee terrain ñëw supporter ndànk supporter suñu équipe ñu fubal ndànk ñibbi si ndànk sans xeer bu jóg sans ngelaw jóg sans poussière jóg ñu ñibbi si jàmm suñu xale yi dem seetaan bu ko defee mairie si koñ bi sax dinañu envie dem seetaan ji ndax nawetaan jamono ji yu weesu loolu moo ko yàq ñu nag dañoo bëgg ñëw relever le défi waaw loolu moo waraloon euh, ñu dajal yi yëpp tuddee ko entente Sofa Coof voilà wax nga question bu am solo du ñu jóg si di leen ko wax ndaxte ñun euh, soo gisee supporters yi nekk fii ñun euh, ñii suñu doom lañ ñii suñuy rakk lañu ñi euh, seen nijaay lañu ba xam ne ñun tout le temps du nawetaan rek moo ñu boole dañoo yàgg nekk di ànd di footballandoo suñu biir moo tax euh, ñu jëm leen jàngal ne leen football du xeex du xuloo du sànni xeer ndax football plaisir la ndax ñu koy def ñëpp boo leen fayaloon xaalis sax dañ siy dem moo taxit xale yi loolu lañ leen jàngal lool lañ leen tagatal te suñ demee loolu la ñuy tari maanaam jàmm jàmm fu mu amul dara du fa xaj jàmm su amul football sax du am waaw loolu lañ leen jàngal te xam naa loolu waaw xam nga du souvent suñu mbokku douanier yi ñoom dañoo xam xaalis ba nga xam ne am na somme yoo xam ne duñ ko bëgg di tudd ndax comme dañuy ba dañuy soog a tàmbali te ñun euh, ñun on voit loin lii taxu ñoo jóg. cax naa ko sànq si biir interview wax naa ko booy xaw ma dégg nañ ma xaw ma dégg ñu ma mais ñun nawetaan rek tax ñoo jóg dañoo bëgg tàmbali nii dañuy soog a commencé te amuñu jotu sax xaar dañoo bëgg jël coupe bi je nekk si yeneen. moo tax comme sooy soog tàmbali doo wax am na ñoo xam ne ñu ngi ñuy xaar ndax am na écho yu dox ñu naan. Euh, cité Sofa entente Diop dañoo bari xaalis mais sant yàlla waaw loolu daal nañ bàyyi ba si kanam incha allah. voilà gannaaw bu ma leen nuyoo sant leen gërëm leen ci démarche bi ngeen def boo ñëw fekk si une cité comme ça encore une fois wax nga wax ji léegi voilà le président defe naa ni ak tout son communauté ak tout le staff xam naa ni def nañ lépp lu ñu war a def mais man je parle sur le plan technique. ak footballistique parce que en ce moment présent man bu ñu ma woon suba ñu football yi man mën naa yóbbu samay jour suba ñu football yi parce que loolu def naa ko j'espère que tey am sax quarante 47 jours ak ñoom kon donc encore une fois di remercier encore une fois le président et son staff parce que ñoom ñoo ma may loolu parce que à temps la ñu ñëw ñu liggéey ak équipe bi à temps kon j'espère que bu ñu ñaanee yàlla rek gannaaw loolu xam naa ni li ñu bëgg dinañ ko am dinañ ko atteindre incha allah. bon pour ASC bi encore une fois man dama ni musuma musuma gis lu demee nii vraiment li ma gis ci ASC bi wër naa ASC yu bari yoo xamante ne nii bon néew na fa kon donc di leen gën a ñaaxaat rek man suma jour la waxal te xam naa ni pare naa pour loolu te encore incha allah bon l' avenir nous jugera bu soobee yàlla. Mhm. voilà voilà léegi damay rebondir tuuti en arrière parce que defe naa football naa ci. daanaka équipe yi gën a mag Tëngéej macha allah j'ai joué Ndefaan ASC Ndefaan ku ko dégg xam ne ASC bu mag la ASC takku ASC bu mag la ku jaar génération foot def pas mal de compétition defe naa ni euh, am na lu bari loo xam ne di nga ko xaw a di nga ko si football bi encore une fois te loolu laay essayer tàggat ci samay joueur gëmal leen sport boobu xamal leen sport foo la ak ree terewul foo la boo xamante ne kenn du ko foowee kon donc foofu damay fay am loo xam ne dafa ab taxawaay boo xam ne dama ko dama ko fa taxawee donc loolu ragaluma ko ak samay jour te xam naa ne match du leen dépassé ndax loolu incha allahu lay dinaa ko liggéey ak ñoom euh, Ngalla Oumar Sall mais Ngalla la gën a xam merci beaucoup. Aujourd'hui, bon, président, c'est Sango Ndiaye, président de l'AIC Résidence président de la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, c'était pour euh, la remise de, de, kits sportifs aux des godasses et des loisirs pour leurs entraînements. Voilà, c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. que vous voulez Bon, on voulait les motiver. les motiver, c'est-à-dire leur donner de quoi chercher hein, au jour du pour qu'ils se défoulent, euh, qu'ils nous donnent du plaisir et, nous, faire gagner la cité. C'est ça qui nous motive. pour euh, leur donner ces kits sportifs. Mhm. Non, ce qu'on attend de l'ASC d'une manière générale, c'est pour tout le quartier. Hein. on attend que la gagne et l'ambiance euh, qui règne au niveau de la cité pendant ces périodes de vacances, c'est tout ce que nous attendons. Le rôle de Le rôle c'est un rôle fédératrice. On veut que l'ASC soit un déclic pour euh, réunir tous les quartiers environnants. Cité Sofa, Douane. Euh, de l'autre côté, j'oublie le nom. De l'autre côté ici, ah, euh, là, un rôle fédérateur euh, au niveau de la cité, ce qui donne le nom entente Sofa Chop, résidence Sofa Sop. Ok, wow. tu viens de répondre à, la question. Bon, nous, voulons un navetan sans, sans violence. C'est pour, euh, on a donné le slogan les navetans autrement. On va tout faire pour euh, les jeunes de, de, notre cité ne provoquent aucune violence au niveau des stades. Parce que euh, le foot ne rime pas avec violence. Wow. C'est tout ce que nous souhaitons à l'AS et à toutes les populations rufiscoises. Là, on va y revenir, Inch'Allah, parce que nous, on, nous avons un projet qui dépasse euh, les navetans. on va y revenir incha allah. Ndiaye président ASC Entente Sofa Diop